daal leen ak jàmm te ji yéen kay xibaar yi bëri moo fës seen xët yu njëkk Sud Quotidien moom def taxaw seetlu ci saafara jafe-jafe yi nga xam ne kat moom askan wi jànkonteel ak tamit nguur gi jafe-jafe yi nga xam ne kat da ko cee am gannaaw ba mu falee nag Amadou Ba mu jiite jëwriñ yi ngir rek Moussa fara jafe-jafey sénégalais yi Macky Sall fi mu toll nii kat dugg na ci xeex bi bu baax li leer ba leer mooy loolu du lu bees ndaxte saa yi falee gouvernement bees rek ak tamit ay slogan xam ne kat ñoo ciy ànd ku ci mel ni Aminata Touré moom li ko gënoon xamee moom mooy moom wax Sénégal boo xam ne kat ñëpp ci gis seen bopp tey ji nag Amadou Ba indi gouvernement boo xam ne kat dafay xeex waaye xeex boobu nag ba léegi askan wi gisaguñ ko li leer ba leer mooy fi mu toll askanu Sénégal ñu ci ay jafe-jafe yu tar sur quotidien di fësal am na yëngu-yëngu boo xam ne kat am na ci wàllu paj gi ak tamit collectivité territoriale yi alarba ba léegi am na ci yenn poste wala centre de santé yoo xam ne kat dañoo taxaw ndaxte kat liggéeykat dañoo banque seen ay loxo ginnaaw bi nga xamee ne kat fédération ou coalition des syndicats ak tamit ànd gësëm nag ñoom ak fédération de travailleurs de la santé ñoom amoon nañ ab grève enquête di fësal ne ñi nga xam ne que ñu ngi ci wàllu dem ak dikk bi ci jaww ji kat ñoom dañuy njëglu bu baax a baax syndicat des contrôleurs yenn dëkk yi nga xam ne kat ñoom dañu ko dakkaloon ginnaaw bi nga xamee ne kat amoon na médiation autorité sénégalaise yi bi nga xam ne kat amoon ay poñ yoo xam ne doon nañ ko saafara fukki poñ ak benn jotoon nañ ko saafara ci fukki poñ ak juróom-ñeent yi nga xam ne kat moom lañ doon kaas doonte waxoon nañ dañ ba tamit dimanche moo tax nguurug Sénégal di wax ne kat jël na ay matuwaayam yëpp lëkkaloo ceeg ASECNA ngir a yéwén fa nga xam moo nekk ci AIBD grève boobu sax teguwul loolu la tee moo ko bind nguurug Sénégal a baax ak tamit coow nga xam di fasal ne ab xale bu jigéen bu la mucc moo ñàkk bakkanam ginnaaw bu ñu ca bloc opératoire bi waaye nag moom doom ji sax moom jot naa mucc ay mbokkam nag moom joxañ baaraamu tuuma personnel bloc opératoire bi hôpital bi nag weddi ko ba mu seet wecci li ni mel sax la tribune moom la fësal ci xëtam mu njëkk li ñuy wax ne kat ndaw si ñàkk na bakkanam waaye itam xale bi moom sowee nañ ko ñuy tuumaal ñooy liggéey ci hôpital ba ñooñu weddi li ni mel ba mu seet wecci li ni mel tam critique ak le témoin fësal seen xel mu njëkk ci wàllu politique le témoin dafa def benn gëstu ci ëllëgu Idrissa Seck ci coalition Benno Bokk Yaakaar suñu naataangoo di bind ne ginnaaw ba ñu falee Amadou Ba mu nekk jiitu jëwriñ kat fi mu toll Idrissa Seck moom ëllëgam nag nekk na xam ne kat mu ci gudd gu setagul la ginnaaw bi nga xam ne kat fal nañ kii di Amadou Ba mu jiite jëwriñ waaye tamit li nga xam ne mu rusee ci élection yi ñu génn muy locales yi ak tamit législatives yi bu ñu taxaw seetlu ak tamit ku ko war a wut ci bopp AFP li leer ba leer mooy fi mu toll nii kat dafa jaxasoo waat bu baax a baax suñu naataangoo di fësal ne ginnaaw nag ba mu fi jëlee Aliou fexe ba dindi di koy ci assemblée bi ñu bëri am na loo xam ne kat waxagu ko nit ñi. yéen i kaab ji quotidien national soleil daf taxaw seetlu ca xew fële ci Guinée ak tamit jeune au pouvoir bi nga xam ne kat yëkkati nañ ay kaddu rëccuwaay tamit ñaawlu bu baax a baax kat li nga xam ne ki jiite si da yaawoo di Embalo daal dina ko yëkkati wax ne kat lañ daan génne boo defoon danga su fekkee transition bi nag weesu na ñaar fukki weer ak ñeent nee nañ kat li ni mel du waxu koo xam ne kat waxu kilifa la kàddu yooyu yéenekaay bi di Quotidien national Soleil moo ko fësal ci wàllu tàggat yaram li tey mooy li ñu xamal ne suba nag ci Orléans ci ci lay doon ginnaaw nag lu yées ñaari weer moo des ci wàllu coupe du monde bi Sénégal war ci amal ñaari jongante digganteem ak Iran waaye tamit digganteem ak Bolivie ñu bëri jàpp ne kat dina xool ay football kat yoo xam ne kat da leen di toog a convoqué lépp nag dinañ ci xam dara suba ndax si si kalifin ak coppite ci wàllu onze départ am li leer ba leer moom mooy ginnaaw Edouard Mendy nekk fi nag fi toll nii ñëpp jàpp nañu Seydi Dieng moom mooy loolu yéen cap du record moo ko bind stade moom ñun ci Krépin Diatta mi nga xam ne kat del si waat na ginnaaw fukki weer boo xam ne kat dafa absenté woon ñu bëri jàpp ne kat moom Aliou Cissé moom ku compte ci kii di Krépin Diatta la mbokk yi jàngan jëf beneen yoon incha allahu rabbi Plusieurs sujets sont développés dans les journaux ce vendredi. Sud Quotidien s'arrête sur la prise en charge de la demande sociale quand l'État bute sur ses ambitions, c'est le titre qui barre la une du journal. En nommant Amadou Premier ministre pour conduire l'équipe gouvernementale chargée de répondre rapidement à la demande sociale, Macky s'engage dans la combativité. Il est à signaler que cette ambition a été toujours le leitmotiv des précédentes équipes gouvernementales. Seul le slogan Change Aminata Touré a été appelé à accélérer la cadence après une yokkute d'Abdoul Mbaye. Mohamed Boun Abdallah a mis sur le curseur un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, après avoir appelé juste. Après sa nomination au travail, Macky Sall a invité le Fast Track. Aujourd'hui, Amadouba engage le combat. En attendant, les populations étalent leur colère avec cette grève de la santé et des collectivités territoriales, selon Sud Quotidien. Depuis mercredi dernier, certaines structures de santé, en l'occurrence les postes et les centres de santé, sont dépourvus de leur personnel soignant. Ces derniers observent le mot de grève décrété par la fédération ou coalition de syndicats dont l'Alliance Andegesem, la Fédération des travailleurs des collectivités territoriales ainsi que la Fédération des syndicats de la santé. Nos confrères de certains pays de la CECNA ont déposé un préavis de grève le 25 juillet dernier. Ce préavis était suspendu grâce à la médiation des autorités sénégalaises qui a abouti au Cependant, malgré les assurances données par les autorités étatiques, l'Union des syndicats de la SECNA a décidé d'aller en grève du 23 au 25 de ce mois. Mais a pris en collaboration avec la SECNA toutes les dispositions pour assurer la continuité du service à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. La grève des aiguilleurs du ciel déclarée illégale par la justice, écrivent nos confrères du quotidien Le Témoin. L'État rassure de la continuité du service à l'AIBD selon Sud Quotidien. L'aéroport Blaise Diagne reste ouvert, ajoute nos confrères du quotidien national Le Soleil. La santé encore au banc des accusés selon Sud Quotidien. Un autre décès maternel suscite la polémique à l'hôpital Matlaboul Fawzeni de Touba. Une jeune fille est décédée après avoir subi une opération au bloc en donnant naissance à un bébé. La famille de la victime impute la mort au personnel du bloc opératoire. Scandale médical à l'hôpital Mandoboul Fawzoni de Touba. C'est le titre qui barre la une du quotidien La Turbine. Nos confrères précisent que le nouveau-né a été sauvé. La victime venait de décrocher son bac. Sa famille accuse les agents de santé. L'hôpital dément. Manibot meurt Le témoin, après le décès de Manembo, sa famille menace d'ester en justice, ajoute critique. En politique, le témoin s'arrête sur l'avenir d'Idriss Seck dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon mon confrère, au lendemain de la nomination de Amadou Ba à la primature, quel avenir politique pour Idriss Un avenir incertain au sein de la mouvance présidentielle compte de la nomination du Premier ministre et de la redistribution des cartes provoquées À l'analyse, les perspectives personnelles d'Idrissa Seck semblent être anéanties puisque son destin politique est lié à celui de Macky Nos confrères du quotidien Enquête s'intéressent à la succession à la tête de l'AFP. Moustapha Ness rebat les cartes, c'est le titre qui barre la ligne journal. Mon confrère explique après avoir adoubé à l'UNSAR, Moustapha Ness le fait remplacer par Papsa Niambay dans le gouvernement, cautionne le confinement de Dr tout entraînant dans l'organisation du congrès qu'il avait lui-même promis pour passer le témoin. Sur l'international, selon le quotidien national Le Soleil, la junte militaire au pouvoir en Guinée a exprimé ses regrets suite aux déclarations du président en exercice de la CEDEAO, Oumarou Seko Embalo, faisant planer des menaces de sanctions contre le pays en cas de transition de plus de 24 mois. Réagissant le lendemain, Conakry a exprimé ses regrets En sport, selon le témoin, c'est demain à Orléans que la sélection du Sénégal va livrer son premier match amical contre la Bolivie. Cette rencontre qui intervient à moins de deux mois de la Coupe du Monde sera l'occasion pour le coach Aliou Cissé de procéder à une première revue de son effectif avant la rencontre contre l'Iran afin de dégager le groupe qui doit nous représenter au Qatar. Nos confrères du quotidien sportif Record s'interrogent Cissé va-t-il chambouler son 11 de départ Avec l'absence d'Edouard Mendy, Sénidien bouleverse la hiérarchie. Crépin Diatta va effectuer son retour après 10 mois d'absence, selon nos confrères du quotidien sportif Stade. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous. Journaux et bonne lecture à tous. Journaux et bonne lecture à tous. Journaux et bonne lecture à tous. Journaux et bonne lecture à tous. Journaux et bonne lecture à tous.